soo maqam al iman ci lan la lay yob da la yob ci al muraqaba al mushahada al maarifa muraqaba moy nga fuglu yàlla ci lu nek waxtu wu nek rek nga yëg ne yàlla mi ngi ànd ak yow yàlla mi ngi nek ak yow yàlla mi ngi fi nga diko fuglu ci lépp su boba doto def ben faux pas ndax président Abdoulaye wad mi jité rew mi tay kum ci nek ton rek ñemewoo mooy benn luwaa ci luwaayu réew lépp nañ ko tëdd tëralee noonu nga koy defee ba ba ngay tàggoog moom soo yégee ne yàlla nag mi ngi nekk ak yow lépp looy def rek dana sell te da nga yëg ne yàllaa ngi ànd ak yow mi ngi gis mi ngi dégg hmm? lam waxoon Musaa ak Haaruna rek innani maakuma asma'u wa ara maa ngi ànd ak yéen maa ngi dégg maa ngi gis soo demee ba fuuglu yàlla waxtu wu nekk nga yëg ne mi ngi ànd ak yow di dégg di gis su boobaa lu correct rek ngay def te loolu lan la lay bi jël mooy mushahada loo jis rek benn nga gis yàlla bala nga koo gis wala nga gis yàlla gannaaw boo gisee mbindeef mi ni kii yàlla moo ko bind yàlla moo ko amal nga gis ko ci moom loo gis rek gis ci yàlla موتاخ ني اغي تي مقام بو نيوم ني وخني على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محاله الزائل لودو يالا رك نين لا كوم نيكو اولوف دي وخي لو جيس رك جيس ني يالا رك مو في نيك موتاخ باي ني تي مباخ مو ني يالا ماي نكو جيكو بون خامنا ني بري تي غور ني دانيو رافلا جيكو بو موي لان موي ني اغنانيو بن نيت mbindeefam yàlla mu mum gis rek kontaan na ci nim la gisee ak ci lim la gis xéewal yu mën nekk ci yow tiitalu ko ndax xam na ne lii mooy namm-namm yàlla ci yow yow nit ki moo tax kontaan na ci ñun ay taalibeem lañ nañ ko jéem a roy ci loolu raxas suñ xol yi fóot ko waxtu wu nekk nga nekk di setal xol boobu pour xol bi ñeel yàlla bàyyi dem na ba feebar waxtu wu ko doktooram seetee rek ne ndaw lu tumuraank jëmm jaa ngi feebar waaye xol bi dara jotu ko te nga fàttaliku laaya ji yow ma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim bés penc alal du fa jëriñ ay doom du fa jëriñ lu may ku dikkal yàlla te fekk ba nga koy dikkal sa xol bu sell xol bu mucc ayib moom nga dikkale yàlla kooku rek moo fay moo fay mucc waaw kon nag nañ fexe góorgóorlu ci xol yi buñ ci def lu dul yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna fi ljasadi mudghatan ida salahat salaha aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb yonent mu ne jëmmi doomu aadama aw lumbang ci woo xam ne su yéwénee jëmmi jéeb yéwén na su yàqoo nag jëmmi ji yëpp yàqu mu ne mooy lan mooy xol bi jumaa yi nga gis ci kaw suuf xam ne jumaa joo gis da nga xamee lii néegam yàlla la soo bëggee xam place yàlla ci sa jëmm ji mooy xol bi rek ndax moom wax na ne ci xadisul qudsi maa wasiani ardi wala samaa'i wa seen xalbu abdiyal muumin xajuma ci asamaana juróom-ñaar xajuma ci suufi juróom-ñaar waaye xaj naa ci suma xolob jaam bu gëm fexe nañ fexe nag ba xol yi yàlla xaj ci soo jiitalee bëgg-bëgg àddina yi ba nga xam ne mooy fees sa xol su boobaa yàlla dootu am place foofu te yàlla lu ji bokkaale rek moom bokkut ana sharikay ni moom moo moo gën a doylu moo gën a riche ci ñaari way bokkaale yi maanaam loo ko boole rek yàlla bàyyee na la loola waxdahu la sharika lahu waaw loo ko boole bàyyee na la loola moo tax bokk na ci ñaani bàyyi ñas muy wax ne يالنا يالا فيصل لخوي اك ادنا تي يالنا يالا فيصل خولي اك يالا سو خولي فيسي اك يالا لو ادنا جي بري بري دوت لو لور يالنا يالا ديفال لو مشاهده سوفو جوغي تي لان غاي اك المعرف ليغي نك نيوغا تي etal maarif xam يالا yalla waxna ci maqam al islam التوبة والاستقامة والتقوى نونك مقام الإيمان وخلا الصدق والإخلاص والطمأنينة نونك مقام الإحسان ينتبه بنك ولاجه لموخون أما الإحسان فقال من درى أن تعبد الله كأنك تراه الإحسان مويلا مويلا جامو يالله بملني يانجي جيس الله wala boog soo gisut yàlla yàlla moom mi ngi lay gis fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak su fekkee ne yow gisoo ko xamal na yàlla mi ngi lay gis su boobaa itam loo mën defar dana set waaye fii ci sufiyanke yi biñ ko firi fàncee séddale ko mooy al muraqaba wal mushahada wal maarifa mooy ñetti étape bi al ihsaan تسو أجيتا مقام مجيبة أجنجي سبرم وأن إلى ربك المنتهى سو أجيتا يلا فاتغل دول يلا فاتغل من دي فاتغل أم تخوان قوش تخواي يلا لوح منك دنونك لوح نبو منك du nekk loolu jaam bu jaamu boromam ba sell rek moom la yàlla yi terale loolu dal nañ ci yàlla li ngi dellu di gërëm bu baax di gërëm jataay bi rafet alaaji Paate sa góorgóorlu jataay bi na ko leeral na ko Mangli bigger